waaw salaamaaleykum yéen waa Sénégal rawatina yéen waa département diggante Touba ak Mbacké euh, man la Pape Mbaye APR Touba maa leen di nuyu di am lu ma bëgg leeralal tuuti ci yéen a ah, bi ci njëkk nag mooy man maa ngi ànd ak sëñ Modou Mbacké moom sëñ Bara Dolly ci politique a ah, wolof Njaay nag dafa wax ne mbër kala jàggi ruur la te sëñ Modou Mbacké moom sëñ Bara Dolly man li ma won ci politique ak lim ma defal ci politique ak dëgg gi ma gis ci moom gisuma ko ci benn leader bu nekk fii ci diggante Touba ak Mbacké sëñ moodu nag dafa nekk ku baax koo xamante ne bii du tëju kenn heure boo demee ma nga ci ab saalam di wax ak yow soo ñëwee laaj ko xalaat ci parti bi mu jox la ci lam am wax la ci lam xam kooku nag ku ko am wax dëgg yàlla da koy fonk bu baax am na fi ñeneen ñoo xamante ni bii ah buñ la joxee rajo sax soo demee doo leen gis te sëñ Modou du genre yooyu. wolof njaay nag def ne kuy raam di la bokk su amee avion la waaw ah, li ma bëgg wax foofu lépp mooy man parti bi dama cee yàgg 2008 ba nag ni maa ngi ci 2012 lu ne laa ci daj sama activité yépp ci laa ko def ak la ma amoon lépp ci alal def naa ko ci bi ci topp mooy 2019 lu ne daj naa ko ci lu ne wax nan ma ko xam nga Touba ne fi di supporter président Macky Sall dafa xaw a metti ci côté ndax dafa am ñoo xam yàlla dafa dogal dañ ko jublut man nag damay dox ci dëkk bi sax ñu naan ma kii dafa ñàkk fayda topp APR di yëgër yëgër guddi yëgër yëgër bëccëg loolu mu daj ko ci te gisu ci boppam kii amul fulla amul fayda fekk ne nag am naa fulla am naa fayda bëgg nag moo ma jiital man nag maa ngi ci APR tey maa ngi ci APR ëllëg duma ko génn tey duma ko génn ëllëg waaye nag gis naa ci lobby yoo xamante ni bii fii ci diggante Touba ak Mbacké defaruluñ président dañ ko yàqal ndax président boo ko bëggee dangay dugg ci askan wi wax ak nit ñi leen jëflanteeg nit ñi ubbil nit ñi waaye APR li ko yàq itam fii ci diggante Touba ak Mbàkke seen nitug démb dañ koo yéemalut rek seen nitug tey seen nitug daal fonk ñu ko daal li ma bëgg a wax seen nitug tey lañ gën a fonk ndax gis naa fi ñoo xam ne barki démb lañ ñëw ci parti bi ñun suñu activité yëpp def nañ ko ci parti bi lu baax lu ne def nañ ko ci parti bi lu baax lu ne wax nañ ko ci parti bi def naa ne boo dugg YouTube tàppe ma yoro danga ma gis ci YouTube bi nga dugg TikTok muy site internet yëpp lu ne wax naa ko lii nag yàgg naa koo jooytu jooytu naa ko guddi jooytu naa ko ba bëccëg lu ne wax naa ko mun tam fexe ba saafaro léegi nag président mag Sall yow lay lancé appel dama bëggoon nga recevoir ñi nga xamante ni bi ñu ngi fii ci diggante Touba ak Mbacke mer ndax carte yi nga daan am fii ak akus néew ñun ñi ñoo la ko daan jox benn ci man mii Pape benn ci Omar Ñaan Omar Ñaan di gaynde goo xamante bi di ku la bëgg di ku fonk di koo xam ne ba mu nee waaw ba nag néew déet Omar Ñaan dama koy waxaale dama koy waxaale dégg nga ku ñuy wax Ndey Jeng nekk fii ci Daaru Minam moom di ku la bëgg bëgg lu ne mi ngi koy daj yow xaalisam alalam lépp mi ngi koy ñàkk ci yow ñooñee nag tey ñoo la bëgg woon ginnaaw nag président ñu def nag benn mouvement boo xam ne boogaan ngee dafa def mouvement tibb sa tànk ñun tam ñu bëgg def mouvement topp sa tànk mu maa topp sa tànk nag boo ko déggee mooy a ah, sa gaa yi nga dugal fii ci dëkk bi suñu demee di campagne buñ campagne par exemple tey jii ci mercredi buñ campagne fii ci guy mbind bu sodee ñun tam ñëw fi campagne fi yaa wax ak ñoom influencé leen xelal leen buñ ko defee daar ku doos euh, bu sodee buñ ko defee daar ku doos bu vendredi ñu dem fa bu samedi buñ ko defee këriñang bu dimanche ñu dem fa bu dimanche buñ ko defee guy mbind bu altine ñu dem fa loolu daal lan bëgg a def léegi nag ñu ñun yow la ñuy lancé appel président Macky Sall yow la ñuy lancé appel recevoiral ñi nga xamante ni bii ñoo nekk fii ci diggante Touba ak Mbacke waxal ak ñoom ndax carte yi fi daan am su néew ñooñal la ko fi daan jox léegi nag ñooñu danoo mer te li tax ñu mer mooy li ma waxoon rek dama koy waxaat sa nitu démb ñu nekk fi seen nitu démb dañ koo fonk seen nitu tey leen gën a fonk ndax man gis naa fi koo xamante ni bii barki démboo Ndiaye lu ne mi ngi mi ngi koy wax parti bi. dem na bay jël kayitu Benno Bokk Yaakaar naan cornet ci caaf sax ëpp na cornet ci caaf ëpp na kooke tey moom lan dooleel fii ci suñ kaw ñun tey léegi nag ñi nga xamante ni ñoo ay mbokkam ñoo sës ñoom ñu ngi ñuy yimbalee waaye lii est ce que neex na ci xol ñun ñi nga xam suñ activité yëpp suñ alal yëpp suñ man-man bépp suñ pexe yëpp def nañ ko ci APR téléphone bu baax sax amuñu ko connexion bu dooy sax amuñu ko li ci def nag mooy li may tëjee nag mooy président ñun danoo bëgg nga recevoir na ndax dafa am mbooloom topp suñ ginnaaw mbooloo moomee nag dañ leen a dig guddi dig leen bëccëg dig leen suba dig leen ngoon te liñ leen dig gisuñu ci dara léegi nag dañoo jëm ay élection muy élection yu am solo muy élection yu maire ñu bëggoon mbooloo mi nga xam ne moo topp suñu ginnaaw bala ñoo wax ak ñoom ñu am lu wér a wér a wér loo xamante ni mi dang ñu ko wax wala danga ko teg suñu loxo ñu mën a wax ak ñoom ñu jàppale la nga am fi ndam lu ko mooy kat danañ boycotté liste bi liste bi nga tamp fii danan ko booy boycotté te danañ ci xeex liñ man waaw loolu li ko waral euh, mooy ñim jiital fii xam nga nit bu fekkee danga koo jiital ci ab dëkk day dugg ci dëkk ba di wax ak nit ñi di leen euh, amal njariñ ñoom nag wax dëgg yàlla dugg ñu bi campagne ñu ngi ci seeni kër toog ñu ñun ñi nga xamante ne bi ñun ñooy campagne ñu nekk ci suñu dugg ci terrain bi dugg ci marché dugg ci dara yi dugg fu ñu war a dugg joxuñu nu moyen loolu mooy mbir mi waaye président ku ne xam ne ni jàmbaar la ku ne xam ne bëgg na Touba lu ne def na ko Touba mu def ci Touba benn président musu ko fee def ba Sénégal amee indépendance ba léegi la commencé ci ab Senghor Abdou Diouf laay wàdd kenn defu ko fi comme neex ak kum naqari président moom lu ko waay bañ bañ bañ bañ bañ xam ne mi ngi liggéey waaw mi ngi liggéey baax a baax ñu nekk tuubaa ñoom la war a xoolaat waxaat ak ñoom ñu dugg ci askan wi ndax li tax ma ne ñoo ko jàppalewut danoo fekk ñi nga xamante ni bi président Macky Sall dong mu leen bëgg ñu néewal ñooñu doole. fekk ñi nga xamante ni président Macky Sall rek lan bañ bëgg def itam di ko combat di combat ba ci ñu am ñu may ñooñu doole benn ci man mi yàlla xam na ne sama carte maak sama njaboot ak ñi may àndal mosuñoo mooy la président Macky Sall cartam samay carte parce que sëñ Touba mosuñu koo mooy la suñu carte léegi nag man dañ maa néewal doole. léegi nag fekk ñi nga xamante ne bi barki démb ñaar ci yeneen parti la nekkoon ñooño lan may doole ñun wàcc ñu loolooy jafe-jafe bi. noo ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di gërëm nag sama leader sëñ Modou sëñ Baara Dolly di ko ñaanal yàlla defal ko ndam yàlla may ko kàttan ndax kat fii ci tuubaak ak lu fi waaye di def ci politique te booloo ci sëñ Modou sëñ Baara Dolly sëñ Modou Mbacké defe naa ne du sotti ndax sëñ moodu ah li walla fi wax ku laax te fedd li wokk sa laax du far ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam.